la justice ay xeex ak ñàkk ñun ay xeexkat lañ au niveau du tribunal ay doomi aadama la ñuy xeexal tous les jours ñu rétablir seen i droit muy suñu fierté donc kenn duñu jàngal benn leçon sur ce plan là ensuite affaire u Khalifa Sall ak euh, l' cinq du règlement kii bi may plaider affaire u Thione Seck moom daf ma contrôle sax moo nekkoon devant <laughs> moom wax na ba tàyyi pour bu ñu annuler procédure bi. mu ngi ni toog mais mais dañ ko annuler parce que nit ñi dañ naan c'est la même chose ak affaire mais affaire Khalifa Sall bi nga xam ne dem nay CEDEAO ñu ne Khalifa Sall bi ñu koy déglu dik ay avocats yam permettre la ñu assister ko bi ñu ñëwee demand la bi ñu ñëwee première instance toppuñu woon waa CEDEAO boobu CEDEAO rendre ko décision yam mais bi ñu ñëwee cour d'appel CEDEAO <coughs> rendre décision boobu mais cour d'appel dafa annuler. procès verbal yi nga xam ne ci lañ dëgloo Khalifa Sall ci amul avocat mais code de procédure pénale dafa wax ne juge am na sañ-sañu annuler procès verbal annuler toute la procédure bi ciy topp comme mun na limiter annulation bi loolu code pénal moo ko wax cour d'appel bi mu annuler procès verbal yi ngeen xam ne moom la ñu dëgloo xalifa Sall dafa amaat beneen espèce ci procès verbal boo xam ne du procès verbal muy le rapport de l'inspection générale d'État juge bi amul pouvoir annuler ko te sur cette base lañ poursuivre Khalifa Sall. très bien PV bi. on a jugé Khalifa Sall on a continué la procédure. sur la base du rapport. Thione Seck. amutoon rapport beneen rapport à part les PV. amutoon benn këyit. bi ñu annulé PV yi nga xam ne juge bi mën na sukkandiku. pour continuer procédure bi. moo tax ñu annulé la procédure il faut que xam nga. taxawal taxawal man nag doo ma ba pare ji ma bari bari. <laughs> damay bàyyi ma wax li ma gis nga Sénégal suñuy wax. nañ dem ca kayit yi ñu bind liir ko xam ko soog wax ñu ngi fiy wax lu bëri buñ liiroon texte yi wala rii décision yi nga xam ne moom la tribunal wala cour d'appel wala cour suprême di rendre waxtaan bi dina fi gën a neex. kon kon nañ jàpp ne daal du PV yi nga xam ne euh, ñooy PV préliminaire yi ñoom ñoo tëj lu xalifa Sall waaye. Euh, rapport rapportu IGE bi la bi continuer procédure. loolu mooy différence bi entre donc benn la rek. sauf <laughs> que ah. Khalifa Sall dañ continuer procédure sur la base du rapport te kooku loi moo ko wax.